enfin, enfin, on va pouvoir avoir un peu plus de vérité sur cette euh, affaire macabre, euh, sur cette trahison suprême d'un homme qui aujourd'hui euh, a fui ses responsabilités en prenant la nationalité ivoirienne pour ne pas faire s'extrader dans son propre pays pour répondre euh, au meurtre de son meilleur ami. j'ai dit enfin la justice burkinabé assume ses responsabilités. Ce n'est pas une justice étrangère, c'est bien la justice burkinabé qui va juger euh, pour la mort d'un des plus illustres euh, fils d'Afrique. Et vous pensez que Blaise va répondre à l'appel La Côte d'Ivoire euh, n'extrade pas ses citoyens, donc ça m'étonnerait que le citoyen ivoirien Blaise Campaoré accepte de venir euh, de euh, répondre à cette accusation. ça m'étonnerait. Donc euh, voilà, c'est pour ça on ne s'excite pas, mais je dis, il y a un processus historique qui est en marche. Et ça, on applaudit, on félicite la justice burkinabé de prendre ses responsabilités, mais on ne se fait pas trop d'illusions. Mais ça aurait été bien pour l'histoire qu'il vienne expliquer sa part de responsabilité dans l'assassinat de son soi-disant meilleur ami. Et pour vous autres panafricanistes, euh, qu'est-ce que ça représente le jour finit toujours par se lever. On attend de, ce procès que la vérité sorte. Gilbert Diendéré au Burkina Faso. J'espère qu'il nous dira sa part de vérité dans l'assassinat. Il faisait partie du commando. Je pense que pour euh, sa dignité, s'il en a, Blaise Compaoré euh, devrait répondre euh, à la justice de son pays pour au moins, s'il doit mourir, avec la conscience un peu plus tranquille. Ah, loolu ñu ngi koy rafetlu au moins léegi dinañ mën a juger affaire Thomas Sankara xam kan moo ko rey lu tax ñu rey ko euh, yan jumtu ay jumtukaay euh, donc loolu il faut ñu xam ko pour histoire Afrique il faut ñu xam kan moo rey Thomas Sankara soo xoolee affaire bi euh, yàgg na loolu 34 ans ñuy xaar pour xam lan mooy dëgg ci affaire bi tey justice burkinabé commencé na processus bi ñu ngi koy rafetlu mais ñun daal xam nañu ne euh, tant que Blaise ñëwul daal euh, affaire bi mënul leer te nee na dafa jël passeport euh, ivoirien léegi nee na ivoirien la donc du te Ivoire Côte d'Ivoire du du joxe ay doomam pour ñu dem juger leen ci yeneen dëkk donc Blaise Compaoré nee na léegi ivoirien dootul burkinabé donc kenn mënu ko yóbbu foofu di ko juger donc loolu luñ lu ñuy ñaawlu la mais ñu ngi xaar daal comme que am na ñeneen comme ñu mel ni Gilbert Diendéré ñu ngi Burkina Faso ñu mën leen déglu ci affaire boobu ñu xam lu tax ñu rey ko nan naka lañ ko reyee et puis euh, su dee dañ leen war a daal ñu daan leen euh, parce que je pense que Thomas Sankara na nag mérité na ñu mën ko sargal et puis mérité aussi momon mën noppalu ci jàmm